ayca jërë ngeen jëf mbokki internet yi Naar Fall mi ngi leen di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp nii kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaareen aljana ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu caab féete ginnaaw yàlla neen suñu borom génnee bañ dellu siwaat suñu biir mbokk ñu leen koy defal comme ni leen ko daan defalee saa su ne neenal leen fépp fu actualité làmb nekk fils de De Gaulle ku ne gis na ni làmb ja demee ñuy félicité Modou Lo di encouragé Boy Niang waaye laataa làmb ji ku ne xam na liy jaay làmb coow ak làmb ñoo ànd ku ne xam na ni làmb bu amul coow promoteur bi bëggut bu amul coow amateur bi ñëw ku ne xam na ni avant làmb ji doon nañ seeti ay nit doon waxtaan ak ñoom ku ci mel ni tey kii ma toogal muy am borom Pikine am bu Boy Niang ak ñeneen ay moromam mm-hmm. ñoo am lu ñu waxoon nag ci làmb ji loolu yëpp doon jaay seen bës ak jàppale seen loolu mënut a ñàkk ci làmb loolu ak làmb ànd duñ def lu bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom ci làmb démb ji. am nuyu nañ la si yàlla. Naar maa ngi lay fay di wax ni ginnaaw bu ñu sant yàlla. jullu si yonante bi dañuy sant sunu ñaari waajur di sant képp kuy seetaan si dañu wër rek ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant képp ko xam ne rek yaa ngi ñuy bégee di ñu safoo ñu ngi lay sant bu baax di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq yoo xam ni Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla musal ñu ak làmmin maa ngi nuyu Yaya Couture borom caare maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax tey comme comme rek àdduna boo si nekkee nga nekk ndaw mm-hmm. am ay am ñu lay di la woo téléphone na la bala ngaa génnaat nangam ak nangam mm-hmm. ñooñu ñu la maa ngi leen nuyu bu di lañ jox seen wàccuwaay wér a wér di xaar mm-hmm. question yi am fu ñuy njëkkee yow mooy wàccaayu combat bi seen diggante ki nga xamante ni mooy Modou Lo wàccaayu combat bi suñu diggante ak Modou Lo la woon bi nga xam ni Pikine na ko soxla woon àdduna soxla ko di wax ni kon may wax rek gaz di wax ni di wax ni di wax kon lu ñu wax rek àdduna moom làmb Pikine na soxla woon làmbu ji te comme may wax damay bëgg di wax ni Pikine bu soxla damay bëgg a gis doomu Pikine yi vrai te man yàlla daf maa dimbali ma dëkk Pikine juddoo Pikine sama yaay dëkk Pikine juddoo Pikine ma bëgg Pikine lool te du ma stressé moo ne su may génn di wax mhm. deret laay waxee ak fugu man Pikine laa gëm amul gën Pikine naar naan mënu ma juddoo fi fii may toog di jël sama téléphone di cliquer di seenaan ñuy wax si Pikine dara te du ma génn défendre ko pour ça deret moo may génn loo wax quoi voilà uh-huh. macha allah mais dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy combat bi démb démb uh, am nan la gisee combat bi doon dox ci diggante Modou Lo ak uh, Ama uh, Boy waaw Modou la ak Boy mu nekk combat bu nga xam ne combat bu neex la woon Modou loo dugg si na ànd ak ay mboxam man lu ma gën a neex si làmb ji barki say ginnaaw moo xam ne ba ma gesoo gis tribune parcelle fees dell dama ah kontaan quoi waaw parce que doon nga ci communiquer lu bari xam nga ma kontaan làmb du affaire de banditisme quoi làmb feewu nowul la ñun Modou Lo ba mu ñu daanee démb barki sëñ Tuubaa dañ ko doon tàcc kenn du waa parcelle génn ne waa Pikine sànn nañu xeer du waa genn benn nit ku dëkk Parcelles génn waa Pikine def nañu nangam lamb la woon kaf ak ree lamb nag bu dafa nekk kaf goo xam ne boo xamul bu si bu si dugg boo xamul bu ko def ndax tey lamb nit war ñu la daanu pare nga bëgg a doxee nenn ñi war ñu daan nga ñàkk ñànki ak as gor du ñàkk a pare ñànki Modou doomu aadama la Boy Niang du doomu aadama mais kenn yorul ndam yàlla moo yor ndam yàlla muy yor ndam moo xool lu ko neex mu def ko lu ko neex yàlla ne tey ku ma àndal mooy Modou kenn mënu si dara bu la adduna bi ñëpp doon ñaanal te yàlla ne Modou Lo la àndal Modou Lo la àndal Modou Lo doomu jàmbur la mhm. pourtant bëri na fi ñu daan ko mhm. kon tey waruñoo daan ñun yàlla mhm. wala ñuy yonante pourtant Modou Lo nu mu def Pikine pourtant Boy Niang noonu la def fee foo mu jëgi ci histoire làmb ku daan mag daan rax ci Boy Niang laa am na keneen ku ko defoon Boy Niang rek moo ko fi defaat aram daan moo ko defoon moo daan Papa Sow daan Ousa Sow à part loolu booy ñaar ak moo fi def. yaa ma de kon làmb kaf la ak ree. nees defu ko nees def na ko. nees tamit def na ko. waaw dugg na kër Fallaye daan Zil Balde daan daan Ama. mais làmb mhm. kaf la ak ree. Mhm. kon meex rek. te foofu noobul la. te mhm. foofu noobul boo si jëm da nga koy xam. ñun Pikine lañ dëkk. mais ay gor lañ ay garmi lañ. booy ñaa kenn daanu ko Modou Lo moo ko mën daan ko. kenn jaayul booy ñaa. kenn deful booy ñaa dara. yàlla moo yor ndam. tey ku yoroon ndam na nga koy jox sa bopp. sëriñ bu gën a aay bu la ngeemoon dem pour si la ku mu munti doon si àdduna bu yàlla ne doo daan doo daan bu yàlla ne doo daan doo daan kon tey foog ñu delloo si waat xel yi ñu defaraat communication yi ñu mhm. xam ne fii mooy yàlla ma xam nga la laa gën a bañ si sport ngay dem guerre wax pare ñu daal nga bëgg a sikkal uh-huh. baaxul asgor war na moytu loolu mhm. asgor war na moytu ñu daan ko pare mu jël di jin defet bi keneen mhm. booy ñaa kenn daanu ko yàlla moo su leen neexee ngeen ne yeneen meru Pikine waaw waaw instant moom problème bi gis nga lamb lamb kaf la uh-huh. gis nga naar ni sa xol dafa war a oyof uh-huh. barki Seydina Muhammad billaahi wallaahi taala sa xol bu oyoful hmm. rafetoo xol hmm. bàyyil man de mañ daanee boy ñaa hmm. billaahi wallaahi sama jabar laa ndak ak ay xaritam ñëpp ma dagal leen ticket ji dem ma def si làmb ji loolu ak loolu yaa ngi dégg génn barki Serigne Touba ñu am nañu may seeraan ay Serigne ñi ma doon woo fu ne di ma am defal saraxu nangam may génne sama xaalis am na benn grand bu may wax jaase jaase depuis Espagne depuis Italie France sama grand la dama doon anniversaire mu yëkkati xaalis boobu may ma ko xaalis boobu lekku ma ko ay sarax laa ko génnewee yéen ko ma njaay sama benn xarit la mhm. bu nekk Italie mhm. ma ma ko mayee mhm. ay lépp ngir bëgg Boy Niang lépp ngir bëgg dama mais suñu borom moo yor dañu décision bi suñu moo nekk diw laa àndal mhm. nañ sant yàlla delloo suñu xel dem entraîné waaj te xam ne kenn mooy may ndam mhm. mooy suñu borom gis nga nit mhm. kon may rek nit nga a doon munoo weesu loolu nit a diin de Boy Niang jiinul kenn defe kenn daanu ko kuru yàlla ñu bëri Pikine daanu jiiñ ko waa Pikine de wax kenn wax ma loolu de samay wax laaj non samay communication bu ko yàq naar man doo ma dugal de non newoon dama lay dugal naar maa daa sol mhm. ba na bu kenn daanu ba pare ñëw bu ko déglu déglu da ngay déglu ma wax la maa lay dégg sénégalais dañuy seetaan ah. te ñoo bëgg a xam lu leer mhm. man samay wax kenn ko yàq dama ne booy ñaar dafa bëre démb daanu mhm. gaa yab di xaar pour communication bu ñu génnee ba naan dañaan di wax daan wala di wax a daan loolu amul fii maanaam fii Pikine la dañoo sportif. Uh-huh, mais coow li làmb ji àndaloon am. waaw làmb ji bëri woon na coow. làmb ji bëri woon na coow mais jeex na président bi paase ku bëre Boy Niang ak kan Balla Gaye ku daan. Boy Niang ah. Boy ren ku bëre. Boy Niang ku daan. Modou Lo premier janvier le deux janvier daaw ñu ngi fi toog di feetu. Mm-hmm. mais waaw. Boy Niang heure mu def ci biir bëre ba Modou daan ko mooy kon may lax rek gis nga booy daanu cuune ngay doon. Boy Niang buy bëre ak Balla xam nga yàlla dafa ànd ak moom dafa juum daan Balla kon tey kon may rek ku juumul doo daanu ak lu mu munti def deful benn erreur mhm. yàlla moo ñëw da daan tey mm. Boy Niang ku ko xam dëgg dëgg dëgg xam ne du jàpp tànk ndigg lay jàpp laxasu wàcc ak tànk bi kon tey bu ñëwee jàpp tàng defee noonu kon wax rek bu kenn saltel victoire jàpp maanaam mm. defet moo ñëw oh, te defet bu ñëw da ngay nangu erreur bi may wax ni moom la Boy Niang def ci biir làmb du ci biir bëre bi mais erreur bu mu def est du guddee bi nga xamante ni guddee na ko ñëw ci làmb ji ba muy bëre ak Balla daa guddee nee naa la tey du démb premier janvier 2024 du bisu Boy Niang yàlla moo jël décision am na bisu kii la nu mu tudd Boy ba muy tuus làmb yu ndaw yëpp jeex na dama ne yàlla moo jël décision na tey du bisu boo ñaa bisu Modou Lo la mhm. xanaa ñu nekk ay jullit naan ba ma julee ba ma jógee saat démb mhm. barki Seydina Mohamed damaa ànd sama soxna mun ne ma bul wax mhm. xam na sama xol xam na sama jikko waxuma kenn dama dugg sama néeg jël sama téléphone fay ko ndax jullit boo meree bul wax c'est vrai lu boo meree bul wax internet dafa garaaw mun nga wax te doo si compte te nit kuy mer di wax baaxul te nañ moytu jox micro mi nit kuy mer di wax damaa dem sama néeg sangu ba set julli jàpp jullee pare toog di wérdi samay wérdi xam ni jaam laa yàlla laa doon ñaan yàlla moo ma doon may moo ma xañ démb di santaat yàlla bu baax xool lu nekk si kanamu booy ñaa nag xale la 2009 la ñëw si làmb am nañu ko jëru si làmb fop lu mu am amuñu ko kon na sant yàlla voilà yóbbu sa yaay màkka yóbbu sa papa màkka sant bu gënu ko rëy ah. mais tey tey tey nan nga gisee communication bi nga xamante ni papaam dégool def na ko ci kanamu Boy Niang ah, dégool bu waxeewul noonu tooñ dugal gor la nga jur doom mu jóge 2009 fekk fi woon dara mu def fi dara koox boo communiqué wul noonu nooy communiqué boo ñaar zéro la fekk zéro def ko mu doon dara tey roi zéro xam nga la mooy roi voilà tey mu wax la luy roi booy ñaar jël na roi bu yàgg mhm. da nga naa ma luy roi booy ñaar roi roi mooy yóbbu sa yaay maaka ñu teg kurang bi seen bopp tey boo xoolee lii ni kurang la dégal couronne la sol mais ana couronne la sol macha allah kon loolu roi la ku sañoon defal ko say waajur naar bu nga yóbbu sa yaay màkk bu baax sax yaay màkk jël nga roi ma ne mhm. roi tur rek mhm. mais nit kon may rek nit la nga mën a doon mënoo weesu lul doomu aadama mhm. mais dama ne booy ñaa yàlla na ko suñu borom defal jàmm may ko gudd fan ak wér gu yaram mais avant combat bi am doon na génn di communiquer doon wax am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi woon parcelle doon génn di tontu am ñoom ñaar ñuy jokkalante muy sa copain sa xarit mhm. góor mbaxal yaakaar naan ay xarit ngeen mhm. làmb ji moo laajoon loolu mhm. làmb ji jeex tey lan nga koy wax lu ma koy wax moo na ko félicitation benn bés la woon parcelle la dëkk bu defaanul parcelle tooñ mais am tamit bu defaanul Pikine tooñ naa fekk weesuwul bàyyi sa gox dem defaari goxu jàmbur man naa juddoo Pikine moom mu juddoo parcelle moom day defaanu parcelle ma defaanu Pikine mais làmb moo lu ma mën a jëriñ amaana ëllëg Boy Niang mënu ma ko jëriñ lu ma ko mën a jëriñ ëllëg amaana Modou Lo mënu ko ko bariñ mhm. làmb day boole mais loolu tàqale quoi mhm. di wax ni kon may wax rek képp ku doon ñaanal Modou Lo mhm. dama xam la maa ngi lay baalu àq di la jaajëfal Sa Touba waaw maa ngi koy baalu àq bu wér a wér di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram dinaa ko seeti dina seeti Sa Touba waaw incha allah si kàttanu yàlla dinaa ko seeti masi la avant làmb ji doon nañ dégg na téléphone mais boobu nekkul dama waroon dox diggante moom nit jàmm. mu ngi may dégg. Mm-hmm. maa ngi koy wax moom tamit di ko baaluwaat ak. Mm-hmm. Serigne Mor. Mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan di ko baaluwaat ak. ba ci jour làmb ji. maa ngi ñu ngi dégg di kaf di nekk si leneen barki alxuraanu karim billaahi wallaahi taalaahi Serigne Mor laa. bañ ne tey jour làmb ji. dama gën sama sama biir kër yaay dama wooyee. ñuy waxtaan lu yàgg. mu a maa ngi def esaat. ma naa ko doo reer ma a ko doo reer. noonu la adduna noonu la. tey kon la meex rek maanaam ñu xamul mhm. ñooy nekk di wax mais ñun xamante nañ suñu biir uh-huh. te dama naan lamb mënut a weesu uh-huh. lamb day boole warul taxal man naan lamb du ma nit de sport noble la parce que nit daan naan nit laa quoi mhm. xel laa yor di xalaat mhm. te nit boo yoree xel di xalaat am nga war nga ko jom a def gor dëgg war na jom a tiimale ko micro muy wax lu ñaaw si moroom gorom gor dëgg war na moytu ñu tiimale ko micro muy wax say papa ngi si say mag ngi si say xarit si say nawle ngi si kon ñooñ di la déglu tey war nga wax lu am ne lu lay jëriñ la ndax wax wax bu yeetewul rek jë doonatul wax wax daa war a jëriñ mais warul blessé man bu ma demee bay jël micro di wax lu blessé nit ma arrêté ko quoi wax dëgg yàlla mënu ma communiquer luy blessé nit mhm. voilà macha allah waajal ngeen seen combat royal dem mhm. yàlla jox ki nga xamante ni mooy Modou loo ndax mhm. Boy Niang ci làmb Boy Niang fu mu jëm waajal nañ suñu combat royal daanu Pikine am trois combats trois défaites. Mhm. si ren. si ren waaw am trois combats trois défaites am nga seen bëre daanu. soq bëre daanu. Ama Baldé bëre daanu. quatre ak Boy jàngat la. misaal la. Mhm. pour suñu borom wan ni dañoo war a ànd. Mhm. kenn yorul ndam. gis nga Pikine. damay wax ak ñëpp laay waxal mhm. maanaam Pikine benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar li ngay wax ni ci Pikine dama ko seetlu tam euh, ci beneen ngox muy Ndakaaru mu mel ni jamono ji parcelle euh, mu ngi bëgg a nangu li nga xamante ni mooy làmb li leen ko may mhm. mooy booloo gi nga xamante ni nit ñi neen dañ koo booloo est-ce que nekkul yeneen gox yi nga xamante ni ñi ngi am jafe-jafe ci làmb loolu moo leen koy tegtal benn wax naa la ko nga dégg ko boo indi woon bale léegi-léegi xëcc benn nga ko damm mhm. boo indi woon bale bi xëcc bëgg a damm yëpp mun nekk kon booloo njariñ la uh-huh. gox bi bu ñu boole njëriñ la gox bi sax boole nañ mais comme leex rek da am yenn personnes yoo xamante ñu may génn jël micro di wax di blessé yenn gars yi te ko lu may wax rek nit nit booy wax si booy wax booy wax si micro ñëpp di la seetaan bu wax luy blessé Pikine da ngay gis koo xamante warul jël micro mooy jël micro wax blessé beneen morom Pikine waa Pikine waa du roy moromu Pikine waa Pikine waa warul blessé morom Pikine nga dëkk juddoo Pikine yoroo Pikine nga jiin ko kii boo ma seen daana nga jiin ko kii boo ñaa daan ko jiin ko kii kañ la gox bi di avancé tey fii fii fii kër kër boo ñaa ngeen ma jëlee nii est-ce que man war naa toog fii di wax lu ñaaw est-ce que war naa toog fii di blessé Ama Baldé wala Eumeu Sène Eumeu Sène mooy Pikine mhm. boo yëpp si moom la toog topp Eumeu Sène seen mag la mhm. seen frère la seen lépp la mhm. ku ñëw da ngay topp si moom te boola bu gars yi bëgg si Pikine incha allah si kàttanu yàlla loolu di am na. Uh-huh. mais dinañ ko confirmer. daa def ay confirmation yi mat yi des ay mag yi nekk Pikine. ba dafa am ay mag yi nekk Pikine. Uh-huh. bu leen dékkee micro xamuñu wax bu ñuy wax day mel ne ay xale yu wax nañ defaraat seen si uh-huh. gox juddoo si gox màggee ba màggee li nga toll ñu lay jox micro pour nga wax si nitu Pikine ngay blessé. communication dafa am solo quoi booy communiquer del communiquer loo xamante bul blessé kenn mais da ngay gis ku dëkk Pikine ñi lay laaj si morom Pikine waa ngay def naka sudul noonu quoi nañ yéenante jàmm naan fii koy yoru wërsëgu kenn fii kenn yoru wërsëgu kenn saa yoo xëyee boo yeewoo salal sa wërsëg da nga koy jëli ji ñetti sit ñoo ma jël téméra mi di wax yéen ñetti ñëpp kenn yoru seen kenn yoru wërsëgu kenn da ngeen xam moo da booloo ku boolowul pertement la tey kii mënoon a xaar ma pare mu wax kii mënoon a xaar ma pare mu wax kii mënoon a xaar mu pare mais que loolu am na sens amul booloo mhm. kon nañ booloo doon benn ñu wax mhm. mag boo nee mag nga bu la joxee micro waxalu rafet mhm. wax ju neex sarax la ko quoi mhm. jërëjëf baat bu ndaw la mais ku jëful dara doo ko dégg munoo nekk man tam mun ma dëkk Pikine mhm. ñu téemal micro ma war a wax si Pikine lu baax di wax si Pikine lu ñaaw jamais 203 du ma ko def waaw di wax nii kon lu may wax rek Pikine a ngi nii na gars yi ñëw gérer Pikine ñu doxal man am c'est terminé bàyyi naa bàyyi nga lan waaw loolu kay communication maa la ko jox bàyyi nga bàyyi nga lan. li nga daan ànd ak Boy Niang wala li nga daan doxalee. Pikine waaw arrêté naa lépp nag wax dëgg yàlla. jël naa waral loolu am xale nga. te doomu Pikine nga Pikine na la ñor. waaw léegi damay jël lépp. teg lépp suuf. maa ngi jégalu ñëpp di jaajëfal ñëpp di baalu ñëpp ak. di wax ni yamale naa ko foofu noonu. communication neex na. lépp neex la. Pikine laa bëgg quoi am lu gën Pikine. macha allah ko. macha allah xol bee tooy. xol bi tooy na wopp ndeysaan xol bee tooy dafa bëgg Pikine ndeysaan ndeysaan xol bee tooy am am da ngay kii rek nga wax yaa ma gën a xam ndeysaan nee na bàyyi na lépp loo xamante ni doon na ko doxal fii ci pikin jox ay raxam ñu doxal moom it ndax li nga xamante ni mooy mission bi mu doon def euh, àgg na mais dangay ngay dëgëral sa xol am nga nga nga wax ak ñi nga xamante ne ñooy askan wi lay seetaan ndax yaakaar naa ni internet bi ñëpp lay bëggee di la safoo ndax booy xool say commentaire ñëpp dañuy apprécier li nga xamante ne moom ngay def da ngay sigg rek dëgëral ndeysaan am na solo jox ko mouchoir bi ndeysaan am am na solo ndeysaan am dëgëral rek nga wax nga tàggoog gars yi yaa ma gën a xam man sax yaa ngi tooyal sama xol waaw amal la yaa ngi tooyal sama xol ndeysaan am ndeysaan yaay est-ce que duñ ko fi yemale ndeysaan nañ ko fi yemale rek di jox dig daje rek beneen yoon incha allah xol bee tooy macha allah am na solo am wéel Cheikh Niang am ndeysaan ndeysaan am déet waay am ndeysaan